ñoo ngi soññi askan wi commune bi ak li ko wër góor ak jigéen mag ak ndaw ku sori ak ko jege ñoo ngi lay soññi nga ñëw jàpp ci xeex bi xeex bi nag daa laaj mbir yu daa laaj pastif daa gore daa laaj amu fit daa am fooy sa tànk kon ñiin nga xam ne ñoo ñoo moom sunu forage waa Ecoatec jóge ca àll ba di ko fekk nag suñu forage boo xam ne depuis mille neuf cent soixante quatre ba léegi forage bi nekk ci robinet bi ñëw ci mille neuf cent nekk bi ñëw fi suñuy baay ak maam yoroon ko ba tey ji Ecoatec ñëw tey di koy nangu ci noonu loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu na ëllëg suñuy bakkan lan ci gar buñ nar a jël forage ñu jaay leen suñuy bakkan kon boog ku ci dee dem aljana kon ñoo ngi leen di woo yéen tundu Kajoor bañkat yi dëkkub Lat Joor dëkkub Baye Massamba Aram Diop ku ne xamoon na ko ci bañ ku ne xamoon na ma Massamba Aram Diop ci bañ ku ne xamoon Lat Joor ci bañ Lat Joor ngi dëkk fii ci su Kajoor gii génn àdduna ci Kajoor gii Baye Massamba Aram Diop ñu ngi tëdd fii ci Kajoor gi nekkoon na bañkat dem ñuy sunuy maam kon nañu bañ tey nan bañ ba tëdd ci naaju góor ak jigen mag ak ndaw comité bi nga xamante mo nu leen fal askal nek sen ginaaw muy sambo job ak Yugo Samb ak Mas Ngom ak ñeneen xale ñoom muy benn comité boo xam ne askan yi moo leen dénk forage bi nañ leen jàppale taxaw seen ginnaaw buñ leen waxee ñu dem nan ànd ak ñoom gendarmerie ànd ak ñoom tribunal ànd ak ñoom ba suñu bakkan jeex nan dem ba jeex takk bu ñu bëgg lekk bu bëgg naan bu ñu bëgg sol mbubu nanu tilim nanu sonn nan dee ak waa toog bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg na dem na wéy Équateur dégage Équateur dégage Équateur dégage mille fois Équateur Équateur dégage mille fois nun amuñu jafe-jafe ndox bañ ko jëlee ci hectare ba Équateur ba tey mun mos na am quatre heures de temps am panne ca ca defarul lu jiitu loolu daana toog ñetti fan ba ñeenti fan du am ndox duna am naan Equatec ñëw indi na ay factures yu cher cinquante mille cent mille mënu ko fay duñ ko fay pari wunu ci pour ko fay suñu bakkan ci teg nan deeba jeex tak ba wute ko ñu doon ko yónni ñoom kon ñoo ngi woo autorité yi ñoo ngi woo commandant mu jàppale nu noo ngi wan sous préfet mu jàppale nu moo ngi woon préfet mu jàppale nu ñoo ngi gouverneur mu jàppale nu ñoo ngi ministre yor ndox mu jàppale nu président ñoo ngi ko woo mënuñu yorunu dunoo néew doole ay béykat lanu duñuy fonctionnaire kon mënuñoo fay mu ak facture ñeenti junni ak cent mille ak fukki junni noo lang noo bañ dañuy dee duñ ko joxe tey duñ ko joxe ëllëg ba dee incha allah Aquatech dégage mille fois Aquatech dégage mille fois Aquatech dégage mille fois Aquatech dégage cent mille fois nanu abal na dem na wëy bugunu tey bugunu ëllëg yàgg ba nu bëgg na ñëpp ñëw góor ak jigéen ak mag ak ndaw man Imam Fall ma pare ànd ak yéen fas yéene dee incha allahu ba xabeex incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi je me présente Mas Ngom habitant du village de Pekes adresse Souguer nous population des villages de Pekes Njuki Pekes Njoox Yendexeen Souguer Jokul Tibar Ndjoko, et Khagan et Ndjouki-Dakar, usagers du forage de Pékès, nous nous sommes encore une fois réunis pour apporter des éclaircissements concernant la gestion du forage de Pékès. En effet, depuis que Aquatec a voulu prendre le forage à l'insu de la population, nous avons opposé un refus catégorique et nous nous sommes engagés à gérer nous-mêmes notre forage. Nous sommes conscients du fait que le président de la République a voulu alléger les difficultés du monde rural. Mais il se trouve que Aquatech ne fait que endurcir la vie des villageois avec des factures d'eau très chères que nous ne pouvons pas payer. Nous demandons aux autorités de ce pays de nous laisser nous-mêmes gérer notre forage car depuis sa construction en 1974, le forage, en 1964, le forage a été géré par la population. Depuis deux ans, le comité sur place est en train de faire des extensions de réseau et nous avons comme projet l'acquisition d'une nouvelle pompe électronique. Aquatec dégage, Aquatec na dem, Aquatec nañu bay, Aquatec sonal nañu. En ce moment, nous n'avons aucune difficulté pour avoir de l'eau. Le comité sur place règle tous les problèmes Aquatec nous avons laissés. Aquatec nous avons laissé des 4 semaines, 5 semaines, même un mois sans avoir de l'eau, avec des factures exorbitantes, des factures de 30 000, de 50 000, même à 100 000 francs, avec un forage qui est tellement sale, qui a de l'eau qu'on ne peut même pas euh, boire impropre à, la population. Même eux, les, les agents quand ils viennent ici, ils amènent avec des, bouteilles d'eau. Même eux, ils ne boivent pas sur l'eau des robinets ici. Donc, ils n'ont qu'à laisser notre forage avec nous. On peut le gérer nous-mêmes. Le message que nous lançons au président de la République, c'est de retourner en arrière, de résilier le contrat d'Aquatec. Parce que nous n'avons pas besoin d'aquatec. Nous n'avons pas besoin d'aquatec. On peut gérer nous-mêmes notre forage. Merci beaucoup. Même aquatec, quand il partait, les deux mois qu'il a fait ici, ils nous ont laissé une dette de 3 114 000 des factures Sénélec. Aquatec, les deux mois qu'il a fait ici à Pékès, il nous a laissé des factures de 3 millions 000 francs.

dañoo xëy dañu indi ni facture yoo xam am na changement facture vingt cinq mille cinquante mille ba cent mille francs mënuñu ko Aquatech na lan la ñu bëgg mooy nañ ñu may suñu dëkk bii ndax ñun ay waa lañ mënuñu facture bu tey mënuñu facture bu ëllëg fekkee boo ko diviser woon tey trois parties ñaar ñi ay baykat rek ñoo fi nekk amuñu fonctionnaire boo xëyee da ngay taaba taaba amoon looy dajale tey li ñu bëgg mooy Aquatech na dem bàyyi nag suñu dëkk bii courant bi dañoo jox carte boo amee sa 1000 francs chargé boo amee sa téeméer chargé ndox mi nag bu ñu xëyante jox la facture cinquante mille di nga teggi sa cin wala dootoo sangu li ñuy ñaan nag population bi di ko ñaan su préfet di ko ñaan Tivaouane di ko ñaan président dafa woote jàmm te dañoo nekk ci jamonoy jàmm jàmm gi nag mooy nañu dimbali ci Aquatech mu bàyyi ñu ak suñu dëkk bi ñu gérer ko suñu bopp ñii ko yor doomi dëkk bi lañ yor nañ ko ñaari at ak juróom benn weer mu suñoo xëy vingt quatre heures lekkee naanuñu ndox ñi ngi sangu ñi ngi naan amuñu benn problème bu fekkente nag mbir da nga koo yor amoo ce benn problème ñi jóge ci àll ba dikkin dina ko jël par force dañoo yaakaar ne dëkk bii nag xanaa am na ab atte te bu ñu bàyyee ak waatee jël ndox mi dinga nga toog ci sa kër ñu ñëw ni la génnal abañu kër gi loolu lay nuru li ñuy ñaan nag ci njëkk ak teraanga ak dal nañ ñu jàppale autorité yi nga xamante ne ñoo ñoo représenté état fii ak ñi représenté tund wépp wépp wépp nañ ñu jàppale Aquatech nañu abal dégage Aquatech abal leen ñu na dem na dem a dem na dem na dem na dem maa ngi jégalu ci wax gi nag. voilà jërëjëf. asalaamaaleykum maa ngi tudd Abdou Karim Gueye nekk président comité gestion bu forage bu Koki waaye lëkkaloo ak comité forage yi nga xam ni barki démb dañoo jot ay kayit yu jóge ci Aquatech liiruñu ko sax ndax intéressé wuñu li ñu ñor mooy suñu forage lañ bëgg a yoral suñu bopp ndax ñoo ciy naan ñoo ciy sangu ki nga xam ne naanul ci ndox mi sangu ci mën nu ko yoral ndax xamul li ñuy jariñ tey xamul li ñuy jariñ ëllëg loraange yim nu jot a jox doy na sëkk ñuy wax nag président de la république euh, bu fekkente ne yow yaa jiite réew mi te ne da ko yor ci transparence te da ngaa bëgg a jàppale monde rural bi ku ne xam na ne nawet bi doxut li nga war a lijjanti kajoor bari na suñ talibaa ngi nii moo tardeel journaliste yi nga tàmbalee ci loolu na la ñor ñu ni nga andil nu ay problème Aquatech ñun loolu àttanatuñu ko nit nag lu mu man lay def lu mu xam lay wax waaye lu mu mënul du ko def ñun nag àndandoo nan juróomi forage yi nga xam ni bindu nañu ñu ay notification démb barki démb jot nañ notification yi mais nag du ñu arrêté la ñu nekkoon suñu forage bii muy neex ñoo ko yoral suñu bopp muy naqari ñoo ko yoral suñu bopp bu ngeen nu tëjee am na beneen équipe bu ne ci ginnaaw ñoom ñooy gérer session bi bu ngeen tëjee ñooña am na beneen équipe bu ne ci ginnaaw ba keroog ñuy jeex forage leen cee jot tey ak waa teg ñabale xam na ma xam naa ko wax naa ko muy dégg bu dee na dégg wala muy gis na xam ni mënta jot ci forage bi tey mënu cee jot suba mënu cee jot ginnaaw suba Serigne Mbaye Thiam il faut être un arbitre njaax ay caaxaan la jël am na daan nañ ko janvier ba décembre gañewul benn forage te perte na fi ay forage yu bëree bëri kon artel wax ko ni ko mu arrière ci li mu nekk wax ko monsieur le président na nanu bàyyi bàyyi nan ko ànd noog ñoom coono yi doon dund jeex na mënoo am sa kër tiwo bi à 10 mètres ñun la 100000 ngay xëcce ndox ñun forage bu kokki du forage bi kooki bi ko Aquatech yoree à un kenn nit moo xëcc robinet ca ndimbu faal bi Aquatech demee ñun ñu yor ko un mois trente personnes xëcc na ndox ñoo ña nga doon bëgg a dee dafa am loo xam ne mënatul nekk président bañunu la ñun xeexuñu ak yow xulawuñu ak yow attaqué wuñ la attaqué wuñ sous-préfet attaqué wuñ commandant lii mënu teg leen attanu tanuñ ko yanu nit mën naa wax lu mu mënut waaye du def li mu mënut ah, Serigne bay Thiam ñun Aquatech nee na fii ak fukki fan lanu may attaqué nu wala mu dem ak ñoom ci yoon yow monsieur le président yow ak sa ministre de l'hydraulique ñun may na la juróomi fan nga àtte mbir mi wala lu xew yaa ko xewal wasalaamaaleykum wa rahmatullah